asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellusiwaat nañu fii ci seen émission bu mag bii di gëstu mu euh, mel ne ni leen ko waxee woon danañ indi ci wàllu plante waaye dana indi ci wàllu lasraar lan mooy xaatim lan mooy tabia lan mooy burju lan mooy munzila lan mooy dindi liggéey lan mooy dindi cet ban wértu la mën a def la nit mën a def yàlla muccal ko soo bëggee kaaraange soo bëggee xéewal soo bëggee yooyu yëpp dañ ci ñëw soo bëggee seet li ngay seet bëgg ndax waaw wala déedéet baax na wala baaxul dañ ci ñëw li ci gën a yéem nag mooy dañu leen koy jàngal ba kenn ku nekk mën koo defal sa bopp kon émission bi du émission gulit la ci réew mi kon dañuy ñëw rek bañ a guddal ci premier numéro bi ci wàllum lasraar ban numéro lañ njëkk jël mooy nan la nit ki di mën a xamee buy sëy ndax sëy bi baax na ci moom wala déet nan la nit ki di xam buy tàmbali liggéey ndax liggéey bi baax na ci moom ba la déet waaye naka la nit ki mën a xamee voyage bi ak ki muy àndal ndax baax na lool dal dañ koy jàngal yéen ngeen xam ko léegi léegi kon ñu yegg ci palato bi incha allahu rabbi defal leen lool euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh liñ leen ko liggéey woon ci ay bés yi génn. wax leen ne leen danañ leen indil émission spéciale ci wàllu lasaraar lasaraar nag boo déggee tur bi mooy les secrets waaye nag liñ ci jublu mooy xam-xam yi nga xamante ni waree su ko sax foowee ndax njariñ gi mu am nga xam ne lépp loo neexul ci sa yaram loo yëgut ndax nit kat dana feebar sax dem hôpital ñu xool ni ko gisuñ coow benn jàngoro te mag yi bëgg a dee kon day wane ni lasaraar am na place ci nit kon mboolem luy dindi cet luy dindi liggéey lu koy toj lépp loo xam ne boo géntee xam li nga gént lan la an yan sarax nga war a génne ana sa avenir nan ngay def ban tabiha nga bokk yan sarax nga war a génne ndax nit ku ne dafa am ay saraxam nag yàlla moo waxoon ne innama sadaqa lil fuqara wal masaakin wan nisaa ila axir waaye nag sarax dafa amaat solo ci mbooleem jeexit bi da ngaa ñëw am na sarax yow sa tabiha am na sarax su fekkee ne yow da nga am loo bëgg a ñoddi am na sarax kon yëpp nañ ci ñëw waaye dañoo nekk ci benn thème boo xam ne mooy suñu premier thème ndax ku ne xam na ni sëy yi tas bari na lool sëy yi tas te li ëpp ci sëy yi tas du xuloo ko waral du ñàkk dépense bu doy waaye li ko waral mooy sëy yu àndut nañ bàyyi loolu xel sëy yu àndut moom ala kulli alin am na sëy yoo xam ne sëy coow la boo doon xëy di jox sa jabar millions par jour saa boo doon xëy di ngeen xuloo loolu day taxaw ci sëy sëy am na sëy yoo xam ne xuloo rek la am na sëy yoo xamante ni bañante sax day am ci sëy day taxaw ci sëy am na sëy yoo xam ne wërsëg da koy taxawee am sëy yoo xamante ni ilaa ilaa ajali musamman du jeex faw kenn rek faatu waaye du jeex am na sëñ yoo xam ne ki ngay dugg ci moom ak kenn mënta tee mu ténji la yëpp na ay xam-xam la ci kàttanu suñu borom danañ ko leeral liñ ci jublu nag mooy barrage bi amoon ci diggante ñun waa daara ak nit ñi nga xamante ni peut-être jànguñu daara xam-xam ñëpp ci war a jariñu émission bi dafa ñëw pour maanaam dajji barrage yi maanaam dindi kiiraay yi ba nga xamante ni ñëpp danañ accéder ci njariñ yi kon ñu wax leen na leen même yow mi nga xam ne élève nga wala étudiant nga wala étudiante wala nga nekk sax ku nekk ci benn métier en tout cas jàngoo sax arabe selon émission bi di nga mën a su fekkee yow da ngay jigéen tudd Nogaye njaay bëgg a ànd ak Pathé Ndiaye ngeen sëy yow Nogaye Ndiaye mën ngaa toog yow nga jël sa machine ordinateur jël sa feuille nga calculer xam ni man ak Pathé Ndiaye mi suñu sëy ànd te di nga xam ban chiffre la taxawee di nga xam ban jeexit lay am te li ci gën a yéeme boo jëlee ñaari nit ñuy sëy nga adet seen tour ñuy sëy nga adab ko xool ko ci seet gii ñu koy xoolee da gis ni li nga gis ci seet gi mooy li nekk seen biir sëy kon efficacité moom ci lii la fekk baax kon première numéro bi dañuy ñëw ci li ëpp solo mooy l'essentiel mooy ni nga xamee ni ci wàllu tubaab dafay am alphabétisation arabe tubaab muy ABC noonu la amaatee euh, lii mooy français bi français FR FR noonu la amaatee ci wàllu arab euh, arab mm-hmm. noonu la amaatee ci wàllu arab li ñu waxee a ba ja benn bu ci nekk nag 28 lettres la defe naa tubaab 28 lettres la A B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z du 28 la lu ci mën di am arabe moom 28 la léegi nag 28 yooyu noonu ay lettres la lettres yoo xam ne dafay ànd ak ay voyelles waaye li nga soxla yow du loolu soxlawoo voyelle li nga soxla mooy nga xam ni A ba ja da h wa za ha po dégg nga yii da leen di rangele nga def ya ka la ma na sa a fa ba xo ñaata laa bind 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pourquoi lii parce que yii yëpp dafay yokk par 1 yii di yokk par 10 kon neex naa xam soo bindee alif alif 1 la 1 alif 1 rek la nekk 2 jiim nekk 3 del nekk 4 halkubeer euh, nekk 5 euh, waaw nekk 6 zaay nekk 7 xaa nekk 8 to nekk 9 taa nekk 9 kon yaa 10 lii kay yomb yaa ngi am une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix léegi nag soo bëggee jàll yaa ngi jàll ci araf bi tudd keef dama leen ubbil porte bi rek su ko defee kenn ku nekk mën nga dem solo ci sa li ngay gëstoo rek yëf yi nga xam ko facilement kon boo ñëwee ci keef yaa ngi woon dix da yokk par dix ko ñëw nga ba dix yokkal par dix mooy da nga naan vingt vingt par dix nga yokk kon après da nga naan trente par dix nga yokk après da nga naan quarante yaa ngi ci dizaine yi après nga ni cinquante après nga ni soixante après nga ni soixante après nga ni 80 fa 80 après nga ni 90 daal di ñëw nag ci 100 kon nii la léegi importance bi mu am mooy tey su fekkee da bëgg bind Muhammad araf yi koy bind yëpp a ngi fii par exemple parce que Muhammad yaa ngi soxla fii benn 40 40 bi nga soxla deux fois soxla deel bi benn yoon muy 4 bi soxla nga fii kon benn 4 ak lan benn 8 8 bi mooy xaa bi kon yaa ngi soxla xaraf bii. ak xaraf bi ak xaraf bi mim bi yaa ngi ko soxla ñaari yoon parce que Muhammad nii lañ koy bindee Muhammad dégg nga kon yaa ngi indi mim bi benn 40 ñëw na 8 ñëw beneen 40 ñëw après 4 ñëw boo ko xoolee mu jox la nag 92 waaw 92 ngay am kon léegi 92 bi nga am pour lan la loolu dinañ ñëw ci deuxième émission bi waaye li nga xam ne mooy première bunt bi war a ubbeeku ci képp koo xam ne war nga ko xam jàngal anglais. bul dégg sax wolof jàngal français nekkal portu portugais nekkal allemande nekkal langue boo mën a langue daal yow 28 lettres yi gëstu ko ndax xëy na duñu am temps pour la ko waaye secret bi lañ lay jox yow secret bi ngir foo mën a toog mën a seetal sa bopp su boobaa sëy yi nu mu mën a taxawee di nga ko xam yamul aussi ci sëy kese ah bu fekkee da bëgg ànd ak nit maanaam lii ci wàllu sarik tey bu fekkee société bu mu mën a doon société da ànd ak nit ki parce que da am voyagé bu war a voyagé nga bëgg xam ndax voyage bi di ngeen dem ba ci yàgg mu war la wala déet da nga toog ba ci yàgg waa service sangam woo la liggéey ne la kaay nga def ci stage nga bëgg xam ba xam waa service boobu seen liggéey dina jàll wala déet da am benn partenaire boo xam dafa ñëw wax la benn projet bëgg nga xam ndax projet bi dina jàll wala déet kon lépp loo xamante ni dafay ànd société sëy société la liggéey société la réunion société la ak lépp lu am ci àdduna loo xam ni coopération la rek société la su boobaa xeetu xam-xam ma leen di wax langue boo mën a jàng da nga mën a am tawféex ba nga xam ne di nga mën a jekku ba mën a seetal sa bopp bu la nit wooyee sax ne la léegi ngay jigéen nit ñëw sa kër ne la laa bëgg soxna nga toog jël sa machine jël sa tur adat ko jël turam adat ko nga xam sëy bi ban sëy la kon loolu defe naa amoon na ñëpp njariñ kon solo araf yi ne nga koy mënee émission bii di ñëw ak yi topp dana gën a leer ci yéen wasalaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.